Assalamu alaikum tembe Sénégal TV encore une fois émission encore une fois euh, plateau du spécial comme d'habitude hein. euh, facile importance vous concerner toute l'Afrique voilà donc euh, juste avant le début du système

plateau wax dëgg yàlla plateau bi maa ngi koy suivre mhm. plateau bu am solo la mhm. yow daanal na doxal rek merci merci en tout cas maa ngi sa ginnaaw ah. voilà donc euh, voilà moom la ah. euh, lépp loo leen gis daal fii nii moom la voilà euh, en tout cas c'est un plaisir ah c'est un plaisir quand même le plaisir est partagé waaw dalal la si plateau bi quoi wala d'ailleurs sax si ñun quoi voilà donc également avec nous sur ce plateau monsieur Abdoulaye Samb l'un des chroniqueurs préférés ah bi nga xamante ne que voilà man Final ko naw sama xarit Ablaye nuyu naa la fay naa Tidiane loo wax ci man rek vraiment ci yow la des ndax da nga di ku baax te euh, kon plateau bu ñu ko bokkee di waxtaan mm-hmm. Mm-hmm. c'est parce que damay gën di gis yow vraiment avancement bi ngay def ok ça fait plaisir kontaan naa ak ni vraiment mm-hmm. ku lim juum vraiment conseil ok allez merci beaucoup merci également avec nous le Tony Priant et euh, l'inégalable Mohamed Samb Mohamed nuyu dóor kat lu ko wax bon day am plan dafa laa ndaw bi parce que suñu DG. ñu naan kii bi di leen ko waaw ngaa am seetlu kon maa ngi lool lool lool voilà macha allah. voilà donc la révélation comme boo ko yàgg di woowee soxna Ndeye nuyu naa la.

am solo lool dem nañ ba seetlu que ne d'habitude les pays africains en tout cas en majorité bu ñu defee élection ba pare rek dafay indi coow léegi loolu lañu fas yéene tey toog waxtaanee aussi parce que y a beaucoup de pays africains yoo xamante ne que aussi ñu ngi jëm ci li nga xamante ne que mooy ay élection lu mm-hmm. dul élection législative bi élection présidentielle donc looloo waral aussi quand même par souci de stabilité euh, ñu toog proposer tel mythe mais fas yéene ko partagé quoi mhm. donc euh, avant mais commencer euh, le maestro Moussa. Euh, question bi si yow de koy euh, tàmbalee tey. yow lecture nga am déjà par rapport à ak phénomène bi nga xamante c'est très récurrent dans les pays africains. waaw comme tout le temps Tidjane ni ma koy waxee rek. Mhm. man sama kàddu dafa am solo. Mhm. dama en général entre tout dama am xam-xam. loolu sax. waaw waaw loolu man le naa ko koy wax tout le temps sur mes plateaux mais peut-être ñi may wax duñ dégg. en fait.

crise bi waxoon naa dama mooy li ma defaa rek. Hmm. dafa am te du fi dañ. Hmm. te fi gën a continuer faaw am xam-xam ni ñun. Hmm. ñëw defar crise bi. defar crise bi foofu laay teg mais ci kanam tuuti. dinaa la faram-fàcceel lépp. lépp ba ci kanam. ok amul benn problème euh, Ablaye Samb voilà yow ban lecture nga am aussi par rapport ak. Euh, ci bi quoi c'est-à-dire ce phénomène. phénomène voilà. très bien voilà très bonne question. Mm-hmm. donc comme ni ko Moussa waxee léegi rek. Mm-hmm. parce que crise du fi jóg. Mm-hmm. te man ni ma ko jàngatee lecture maanaam jàngat. ci poste électoral. maanaam poste mooy après. pré c'est avant. donc poste bu nga waxee. dañoo bëgg a laajte. ni maanaam ndax est-ce que la fi nekkoon ba tey jóge na fi. kon ça veut dire nii. crise euh, moom chaque jour c'est récurrent day ñëw day mm-hmm. ñëw parce que liko waral moy mm-hmm. euh, xam-xam dafa am solo mm-hmm. te xam-xam c'est la base de toute chose bo amul xam-xam bëgg diriger dara du sorti parce que dañ naan les tonneaux vides font trop de bruit mënoo ñëw fekk ñoo xam ne am nañ xam-xam tok nga bëgg a diriger leen te xam-xam faaw nga jangi comme ñoom bo waxé buñ né A nga ni A buñ né A B nga ni B mais buñ né A nga ni B ça veut dire que sam njàng des na donc crise du fi jóg ok bon

livre yàq suñu émission waaye. yàq suñu émission bi. si parce que dama wax lu am solo. parce que xam naa ne après débat buy mujj. waaw dafa war lu am solo te d'accord ci. non non non su ma ne am solo parce que yaakaar naa ne nit ñi génn lu amul solo. mais dañ ci mën a ànd doo ànd ak moom. dama ne ne dafa wax lu am solo. mais àndoo ci. mais ànduma ci. Fatou Seye léegi waxal lu tax. parce que yow mënuma concevoir nga nekk dans un pays nga ne yow sa président cuural. moom ngay waxal wala. non non non non non

waxtaan bu muy jël waxtaan bu am solo la. pour ma ñëw nag ma bay mën a puiser par parole bi. c'est-à-dire que nit ku ñuul moo bëgg nguur. Mm. bëgg bu mu bëgg nguur nag moo war a à chaque fois crise day am. Mm. mais comme pour ñu mel ni déjà macha allah. Mm. nee na moom su ñëwee loolu noonu bu dee euh, dafay jëndi. ci la mu mën a dégg parce que su ñëwee rentre politique président. sama premier rentrée laa bis moo commencé woon président. bis politique. sama premier rentrée politique. waaw xaw Jadi ndax dina am am du am. mais man je serai président. ok après incha allah tojal ñu ko. fu ma mën a mën a puiser parole bi. daa bàyyi sama mbokk ok soxna Ndeye. c'est-à-dire suñu njiit yi saa yi ñu toogee bëgg a accaparer pouvoir wala quand même de de. de, la population. Est-ce aujourd'hui à dire que c'est, comme nous l'avons dit, manque de connaissances, ou le manque d'honnêteté, ou le manque de respect vis-à-vis de la population crise boobu que wax crise ko waral ñoom ñi ne ci politique bi mhm. ku ne ak ñëw waaw ñu bëri ak ñëw ñu bëri réussir hmm. ñu bëri ay tricheurs hmm. xam nga ñu jox la sujet hmm. nga tricher ba jàll am na bokkut ak ñu jox la sujet nga étudier ko jàng ko xam ko man ko ba def ko pour rek te ñoom ñu ne si nguur gi na mayaate mais ñu bëri dañoo tricher ba àgg fi mooy parce que yow nguur dafa am loi am règlement léegi ñoom règlement yi boo boo ko xamul à chaque fois da ngay contre sa morom. Mm. ñoom ñu bëri tey jii boo demee xam code euh, code yi nga xamné ne loi yi nga xamné ne nañ ko. Mm. pour politique. Mm. tëral nañ ko pour concevoir ay résultats élection. ñom ñu bëri xamuñu loi. non ñak xam la wala xam ko ba paré bañ ko def. ñàkk xam la. parce que ñom ñu bëri xamuñu ko. ñi ngi gis ñuy xatalaay.

papier boo ko gis papier buy taxawaal boo ko gis parce que lan la màggal Touba moo am président na ñëw tey dafay ñëw Almadies ñu new day ñëw ànd nangam wala koñ nangam suuf doo fa nekk suuf doo ko fa teg kon le problème c'est quoi maintenant est-ce que ci président bi est que ci population bi la en tout cas yaa triché yaa triché mm-hmm. dafa am entre mensonge ak seen diggante ak ñoom benn histoire bu ndaw balaa may développé benn femme Marième Faye Sall daf ko war a seet si ma ni nopp dañ ma ko nettali ci li ma nettali daf ko war a seet si mu àbb kër te moom ci baraan la dëkk Marième Faye Sall ñëw fekk ko foofu ci kër ga ñu ko xool kër gi situation am kooku mu lay dimbali ci mais attends mais fi nga dëkk moom ko mais nekk fa man ma ne war a nekk président ma xam ni pan depuis cinq ans mm-hmm. dañuy théorie dañoo toll ci jamonoy pratiqué tollatuñ ci jamonoy théorie légui président bu fi ñëw jamono ji bëgg def la différence wallahi xasin bo ñëw indi théorie do dem moy li dal ñëpp baara la ñuy doon fi jamono ji balaa ñuy xool France balaa ñuy xool Allemagne balaa ñuy xool fenen ñun nañ xool lan moo ñu war a mën a développer sur le plan pratique mais muy benn une chose aussi euh, avant ñu lay may nga pratiquer aussi faut nga jaar si théorie bi moom laa ngay présenter sa programme mais expliquer mais explication yooyu mais ci jaar depuis Senghor laa depuis Senghor. Hmm. gars yi dañoo jàng ba depuis Senghor te ña jàngoon depuis Senghor ba léegi amaguñ liggéey. Hmm. la seule chose qui les reste maintenant. Hmm. ñi leen dese mooy pratique. mooy pratique te mosuñu leen ñamal pratique. topp lan lay ñamal ñu la xaaraatal. léegi réew moom réew moom nan lay doxee kon ñooñu war nga mën a toog te ñooñu am nañu xam-xam. ñaar ñi réew ay inconnu ah ay ñu incapable waruñu ko jege.

ci dans les normes. dans les normes tey bu wooyee. bon bien vrai que xalif yi aussi. waaw citoyen wala si ay citoyen simple ñu ñii quoi ay kilifa la ñu mais président bu leen wooyee dañuy dañu war a wuyu tout à fait muy benn problème ah. Sénégal dina de ah. politique bi Sénégal tey bu ah. ko doon tey dañ ko bañ fond bi laa wax de fond bi hmm. mais dañ koy bañ hmm. xam nga tax ñu koy bañ hmm. bés bu bés bu rek la woo kenn bu si bëri seen ceeb dootul neex seen ceeb dootul neex président bu woote woon tey benn woo ñaseen mm. mm. euh, bi seen xalifa mm. woo la laayeen bi seen xalifa woo tijaan bi seen xalifa woo mu bi ñoom ñëpp ñu leen man damaa bëgg defar réew mi te réew mi man gis naa ne pour ma defar ko ñi foo foog ngeen impliqué foog ñu impliqué muy benn léegi nag dama teel ay charte dama charte yi dama koy wàcce mais bu ma ko wàccee mu jaar ci premier ministre jóge ci premier ministre wàcc après bu yooyu bu ñuy wax affaire gouvernement après ñu yëkkatiwaat leen ko yéen joxaat leen ko mm. ngeen jël affaire yi ngeen wàcc ko wàcc ko ba ci suuf mm. tey bu benn nii côté bële bu bu mu tilimati bu mm. fa kenn sawat sëñ boo koy wax de dootul amati beneen wàcc wàll bu dootul amati beneen wàll bu dootul amati beneen wàll bu gën a ñëw taxaw kon loolu est-ce que li jënd ci réew mi mais soo waxee ñu a c'est pas facile. Mm. comme qu'on le pense parce que ils ne veulent pas le faire. Mm. parce que buñ ko defee. Mm. ceeb ñu bëri dootuñu tooy. ndax dañuy ànd te bëgguñoo nous ñoom problème bi yëpp. c'est eux qui l'ont créé. ok diviser mais ça faire. diviser pour mieux régner. ok euh, Moussa lu mu wax fii nii dafa mel euh, bon ça veut dire proposer solution. Moi, par exemple euh, l'implication de toutes les couches et surtout surtout surtout des pouvoirs traditionnel ou et, et, et religieux. Mmh? Bon, ça, vous avez l'exemple Khalifi, c'est des pouvoirs religieux. Hein? Donc, on a aussi des porteurs de voix, des gars influents, aussi comme les Jarafini, les Réo et tout, hein? Bakénou Gordier, donc il y a aussi des. Euh, am nañu benn pouvoir boo xamante ne dañ koy jouer donc implication monde le le le prôné Voilà.

Euh, ça, tu es satisfait de sa proposition Non, pas du tout. Pas du tout. Bah, parce que nous avons un débat. Nous avons dugal campagne la boo xam ne nekk fa. parce que loo waxoon sànq la. crise post-électorale. C'est tellement important. Dès hum. que tamit euh, déjà dama war a poser question boo xam répondre Non, je hum. non xam pas répondre à ci hum. parce que su ma ko def parce que fu nekk je teg fii war a jàll le Je mais vais parole bi les joxe mais salaire pour faire pour stratégie pour solution il faut que je joxe ok benn affaire mhm. parce que ay réaliser mhm. réaliser Sénégal parce que mhm. Sénégal

ok ñoom laax na lekk ba baa ma laax jaay ok loolu laa la bëgg expliquer mhm. parce que wax su ma de jëlee lu mu wax rek mhm. débat bi am sens maa ngi leen di ñaan ngeen may ñu benn xam nga rek ñu xaw a élargir bi tuuti rek li laay war a suuli parce que le débat est très intéressant il y a trop de choses à dire ah ngeen baal ñu rek voilà uh-huh. comprendre nga balaa c'est-à-dire que tamit su ne africain yaakaar naa ñëpp

ñu jéem a conseil suñu mbokk ñoo nga xamal ñoo nekk ci kaw pouvoir bi ñun pouvoir kat ne dañ ciy dee dan la jox pour laps de temps pour nga dawal boo xam ne dañ koy jéem la société def dafa am solo gis nga ni ci biir kër sa dañ ko war a dawal dañ ko war a dawal mun a ak lu moom dëgg la ñu ñoo joxe nguur ñun nañ am fula fere bés bu tey jii ñu bëri foqatu nguur nañ ko foqatu nguur avec dignité avec démocratie ñu mën a nangu les transparent élection transparente ok euh, euh, élection transparente mais aujourd'hui on a constaté que pratiquement hormis le Sénégal euh, le Cap Vert peut-être récemment avec Bénin a na une transition aussi démocratique on voit rarement quand même les pays africains en transition électorale calme sans pour autant une contestation même Sénégal fii peut-être aussi que ni du am mais il y a toujours des contestations la dernière en date moi, élection législative yi a jógee nii ba léegi opposition baa ngi kaas di wax que ne dañu sàcc affaire les leerul woon or mission yi et tout aujourd'hui yo, euh, ban lecture la war na voilà, juste ñu dugg aussi si côté joxe solution quoi. d'accord euh, Euh, ñoom opposition bi que muy opposition bi que muy pouvoir bi mm-hmm. à chaque fois man li may wax rek mooy que ne ñoom buñ xoolee day ñu moom xam nga ay danga sàcc bu fekkee pouvoir bi benn danga gañ ñu ne danga sàcc mm-hmm. bu fekkee opposition bi yow boo gañee doo wax dara mm-hmm. xam nga ñoom ñi di wax ñi ñëpp buñ gañee woon bu wax dara mais ñun dañoo war a xool ñoom lan lañ war a def pour gañ ak lan lañ defoon pour gañ pour ñu gañ leen parce que xam nga li ñu naan pratiquer ñoo war a xam li li doxal réew dañoo war a xam ni avancé ñun loolu lépp xam nañ ko. ñun en na toutes les idées. kon nga xam nga lan moo fi nekk. dañoo dañoo ragal pour ko. dañoo dañoo dañoo wóolu suñu bopp pour jëf ko. mais fi ñuy jaar ñun xam nañ ko. xam nañ ni war a def pour jàll. xam nañ moyens yi ñu war a teg mais kenn ku ne da nga da nga sa kenn ku ne comme si tey da ngay am benn idée. Hmm. benn benn euh, phénomène de. xew benn événement mais am nga benn idée bu baax xam nga solution bi leer na la yow lii solution la mais da ngay ragal bu baax peur boobu ah ak ñàkk woon sa bopp boobu mu am ci ci réew mi eh, doguma waaw mais yow nee nga ci biir ne xam na fi nit ñi jaar yow franchement yow xam nga mais nu tëdd yow boo ko internet Sénégal TV yoo xam ne ñu ngi seetaan ba xam daa am noonu parce que Sénégal TV nekk na boo international baaxal leen nga wax leen solution bi lan la. non non sànq sànq non sànq non parce que tamit non sànq bu ñu expliqué la solution. yow yow génnoo débat bi. non non non solution bi ak. non non non du xam nga solution mais. là, moi je, je, non, comprends. c'est une explication C'est un débat. Non, c'est un débat uh-huh. que chaque personne a le droit de s'exprimer. Mais pourquoi ne nee na ma baal ko ma ma baal ko ne ko. yaa ngi wax di dëgg wax ji. parce que dégg-dégg dafa am solo. mais même dëgg non li ngay dégg. waaw li muy dégg kenn du dégg bokk. mais ñii kooku moom dafa nekk si moom. un journaliste un chroniqueur. war a baaxee. ay transformé information bu juste bu am valeur. mais du ko relater. waaw mais mais mais mais mais man euh, moom li mu wax. Uh-huh. Euh, mooy mooy li mu wax li ma leen la. am nga idée am nga idée bi ah. uh-huh. kii am nga idée bi mais pourquoi ñu ñu ko appliqué. Uh-huh. xam nga wax dafa neex. ñun ñëpp kenn ku ne danaan euh, tey kàr bu os bi boo si defee eau de javel dina set. mais jusqu'à présent kenn ñu mënut a jël ci def eau de javel. parce que yaa ngi yaakaar ne du set. donc maanaam macha allah y a l'intelligence. man sa cercle soo waxee. amna ñoo xam ne dañ ko jëriñoo. macha allah jox ma la quoi je touche du bois. ni ko tax mais loolu la dama bëgg yow nga di ko wax di ko quoi. parce que nekkul di campé. parce que ñoo comprendre am ñoo comprendre yow macha allah tu as fait des jetés. Mm. jang nga mm. xam nga mais il faut nga véhiculer message bi joxe l'importance non xam nga ci mais aujourd'hui aujourd'hui aussi mais apparemment. j'ai comme l'impression que tu as pas bien saisi aussi ma question. Ça, aujourd'hui je t'ai dit. Mm-hmm. tay en fait euh, problème bi bi bi am en Afrique d'habitude moi euh, nit bu mhm. cest les élections de manière générale ne se passent pas de manière transparente. Mhm. c'est soit nguur gi mooy confisque le pouvoir l'opposition opposition bi soit opposition bi gagné par euh, voie de coup d'état ou la violence ni quoi donc faut faut la c'est-à-dire rares sont les pays qui ont euh, transition démocratique mon nañu cité un exemple le Sénégal même bien vrai que nous coow yi dafay bëri période euh, préélectorale yi coow yi dafay bëri ba nit dañuy xaar à ce que nous am la wala guerre ni mais jusqu'ici alhamdulilah dañ koy santé il euh, y a y a toujours eu plus de peur que de mal euh, récemment le Bénin comme nous ma la ko waxee affaire de transition démocratique mais am y a des pays stables aussi comme le Cap-Vert. mais Tidjane. ah hein? xam nga ba doog ma. foofu tout le monde a raison. jabar tout le monde a raison. waaw xam nga lu ku ci nekk. fi sa esprit toll wala sa xam-xam. foofu ngay waxee. waaw foofu ngay waxee foofu ngay waxee mais dafa am loo xam ne aussi nga kii laax moom day lekk. sàmm moom a laax. waaw xam nga la ko sans problème. man mënumaa rek le problème mu Congo sama yoon newul ci on, parle d'Afrique. Non, non, non, non, je suis un Africain, donc je dois sauver les Africains par non, non, non, Non, non, non mais non non, non, non, les non, non, non, Il faut que moi, il faut non, non, non

gérer bu ma ko. Mhm. di gérer benen gal jaawul. tout à fait mais non mais avant may am man satisfaction di baye sama kër di dem di gérer benen kër. nga am am stabilité d'abord abord on n'a pas cette stabilité là. Mhm, mhm. kon coow yenen coow yu ñuy dugg ay gabo ay gambi ay affaire yooyu. man personnellement je me dis je m'en fous parce que pour ma ko sax lire. bay comprendre mais déjà li ma bëgg a xam mooy ñoom ak dëkk bi ma nekk. dëkk ba may réglé. moo ma stable c'est ça que je suis en train de dire mais avant solution Gabon voilà, Afrique. donc non non mais on n'a pas. démocratie au Sénégal. Mhm. on a maintenant on a le le peuple en souffre aussi hein. peuple dit aujourd'hui nous souffre ça c'est la démocratie sénégalaise.

les autres pays yëguñu ñu. yéen les Afrique waxuma la ay tubaab de Afrique ba tey am na ñoo xam ne yëguñu ñu ñun ñu leen yëg waaw léegi yëpp boobu man balaa nga may wax wax wax ñoo di def nañ dee parce que ñoom ñoom ñoo def li leen tax fii ñaata la fiy dee da wax ñu ko. waaw d' accord mais kon j'en parle pas non man mënu ma dugg ci beneen

débat bi mu ngi commencé di am solo. Mhm. mais fi may mhm. euh, presque solution. Mhm. Euh, débat wax ni quelle de vous de la crise post-électorale en Afrique. mënuñu wax crise te violence. cest à sacrifice. aussi donc donc effectivement wax Sénégal c'est bàyyi yeneen. mais généraliser Afrique. Afrique en souffre de mm. souffrance boobu mm. Moi, war lépp ñu ko table mm. parce que olof day pour me dire, euh, affaire mais aussi hein. euh, je suis équidistant euh, de vérité tout comme aussi parce qu'en fait on peut partir du général du général au particulier parce fait il ne faut pas aussi exclure le Sénégal de l'Afrique hein. Congo exemple peut être Sénégal aussi nous la exemple Cap Vert exemple Gambie aussi exemple en Afrique en général donc maintenant

ñu ngi ñu ngi développé suñuy idée. man ci pratique mais man damay pratiquer pur et durement. waaw d'accord xam nga mais am na fi nga Sénégal fii waaw parce que parce que añu boo gis benn lekk man. waaw te bala ngaa dimbale kenn ngay dimbale xam nga sama bopp mën a gën a dugal ñaareel. merci ñun bala ñoo mën a défendre keneen ñu protéger kenn ñun nañ protéger suñu bopp pare. Mm. parce que ñun déjà on souffre. Mm. léegi man li ma la wax ne la idée yi moom fii. Mm. nga demoon. kon nooy la wax idée bi. ñun dèjà ñun ñu ngi def effort. ñun li ñu def ci effort la parce que ñu ngi dénoncé. ñu ngi dénoncé euh, mensonge mensonge bi fi nekk ñu ngi dénoncé.

loolu lay wax pourquoi pas ñu jël ko. ñun liñ dem ñu ngi koy def. ñun yéen am. wax c'est-à-dire bon foofu mën nañu comprendre aussi si waxam comme non mën nañu comprendre aussi si waxam par exemple comme. di nga xam ne par exemple on fait non xaaral di nga ñëw. non non non si parce que yow soo bëggee lu mu bëgg a doon nga tontu lu am sens. non non non mais dañu si damay doole mais bàyyi ko laaj. non non non non non non non non Euh, moi, y moyen eu mu wax aussi pour nekk qui elle a parfaitement raison parce que tout simplement tey Vous faites des ne bëgg nañ ah et que l'opposition et l'opposition ne ne ne débloque pas par exemple les moyens matériels pour nous, mais donc ah, mais donc ko mën xam nga voilà parce que nekk aussi fi nga amee moyen. sa apporté la yow yow jërëjëf. waaw léegi ba xam ba fa sa. sàmm wax damay namm wax. da ngay namm wax mais bu xam ne. sàmm wax dëgg la ñoo ko def si parce que heure baa def moo tax il faut que il faut que ba sax waaw am ñaari message boo xam ne tontu kii tontu gën. waaw parce que wax très rapidement waxtaan ji la. waaw moo tax ma ne ko macha allah. am na xel hmm. waxa loolu la xeet doon mais lu ko lu ko bëggee tënk wax. Hmm. am ñoo xam am ñu dégg-dégg boobu moo tax waxal hmm. mais loolu à chaque fois. soo wax loolu jub. lii nga war a wax parce que ñoo ngi wax. waaw comme daa baax loolu laa bëgg à chaque fois ngay véhiculer message. Mm. parce que dafa am solo ñu ko dégg di ko jëfee. comme que yàlla macha allah may nga xel bi jàng nga mais day ko passé. sàmm bu ragal ci solution. non non mais solution non dama koy toog parce que. non mais tam bi. mais non non non yow yaa jël émission bi ak ko. yaa ku wax aussi am naa droit appuyer waa waa léegi mais ma tontu kii. waa léegi mais rapidement. mais maa ngi tontu aussi. mais mais non non waaw. léegi ba nga ko am ah ñu wax nag nee naa ma jaara misaal sama déedéet ko nii. sàmm demal. bàyyi ko waxoon naa leen nag. ba naa ne xam naa damaa fu mu jëm. waaw lii laa doon xaar. moo tax waaye léegi dafa baax. waaw demal léegi dafa baax parce que yaa naan sama dèjà ñoom yaa ni mujjee. waaw moo tax mu wax loolu. sàmm benn benn waaw waaw damay wax parce que damay wax parce que man yéen ñëpp wax dama war a tëj. waaw dèjà dama wax benn am na am ma jël débat ñu teg moo tax ma wax ngeen Sénégal. naa baax son mbokk africain yi. waaw dëgg la baax la yow li nga wax. yow la concerné. waaw kay su neex nga bañ a xool keneen. Mm. mais am naa droit ñaari bët la ma yàlla may. waaw bët bi Sénégal bët bi Afrique. waaw dëgg kon day baax na man laa biir sama mbokk africain yi. yaa ngi ci yaa ngi ci raison. loolu la léegi ci biir loolu. Mm-hmm. avant ngay wax. waaw xool dama am xam-xam. loolu la ma wax waaye léegi dafa am. macha allah Merci solution solution solution solution conscient Afrique le continent crise le continent africain en souffre souffrance mais parce que mm-hmm. la souffrance violence violence mais aussi euh, métti na ba coup d'état yi bari na da ngay coup d'état ndax élection des déjà après élection nga gis ni ñu koy préparé bu élection jàllee kii moo une fois moo gagner, rek maanaam paaka yi jamante yi commencé tout à fait donc kon loolu noonu il est temps nag ñu fay ci xam ne bu les crises kon violence daanaka moo tax ñuy wax mais nous question aussi rek les internautes que ni dañuy wax pour débattre mm. mais juste ñu bàyyi xel ni solution mooy lan

charité bien loolu la commence par soi. man loolu laa gëm. Hmm. xam nga tax oh, désordre di nekk fi yëpp. parce que ñoom ba tey waxuñu ne dañu séq ak yeneen réew yi. Hmm. te la ñu séq ak yeneen réew tey ñun moo ñu indi ci problème bi ñu nekk nii te tant que problème yooyu réglé wu fii képp ku fi jël nguur jamono ji ñu toll nii crise ngay dundaat tu sais pourquoi parce ki fi nekk bul dem du la bàyyi dara ba pare daf la fiy bàyyi ay bor te yeneen bor yi ci sous raison bii nii nga yaakaar ay gàmmoo yi dañ leen a yoral ay bor jeex mais mosuñu gis nga affaire dañ naan secret d'état la mais dañu wax fond bi nag moo fa nekk te tant que demoon na ba ci fond bi ñu ne yàlla ñoo dimbali ñu dem ba ci fond bi xam la fa ne léegi boo ñëwee ne bëgg ñoo wax ñun pourquoi am nekk bis affaire politique parce que xam nañ dafa nekk mais solution may joxe mooy li ma laaj sànq moom laa lay tontu mooy dama ñu su ma nekkoon man euh, premier bi su ma de demee ba desul dara pour nekk président première euh, nu mu tuddati part sama première participation président laa def

la solution. Uh-huh. lii mooy xew Sénégal. Uh-huh. da ngay joxe bilan. Uh-huh. après doo doxal. doo doxal bilan ba. loolu la moo waral coow li moo waral coow moo waral aussi ñuy tëj ah, tey euh, sama technicien yi mere nañ ma actuellement ni mere boo xamante ne que mooy loolu waaw Mama Fatou sama xarit la sama waay la moo mere voilà donc lii lañ leen indiwoon say ji ah seen émission taxaw seetlu dañuy joxante rendez-vous rek très prochainement ci beneen numéro bu bees voilà donc bonne suite de programme sur Sénégal TV merci à très bientôt voilà jóg jóg jóg jóg jóg jóg jóg jóg taxaw takku tembe taxaw seetlu